njiitum réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina jiite cérémonie d'ouverture bu ñeenteelu édition bu dialogue national bi ñu war ko amal ci temu indiwaat ay coppite ak jekkalaat lii du wàllu justice fële ca centre international de conférence Abdou Diouf bu Diamniadio gouvernement bi dal di fësal liste ñi ca war a bokk ca yooyu le assise ñu war ko amal ki talaata bi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi ñu ne liste boobee nag mën nañ caa gis ay personnalités yu nekk ci société civile bi ci syndicat yi woy taskatu xibaar yi ci média yi ak ay parti de l'opposition ak yeneen i banqaas waaye ñàkk teewaayu ki fi doonoon magistrat di Ibrahima Amidou dem ñu gën koo xam ci juge dem jur na coow ndax kenn invité wu ko ci boobule ndaje moom mi nga xam ne nag ñu ngi ko gënoon a xam ginnaaw bi mu tekkee ndombal tànkam ca conseil supérieur bu magistrature teg ci magistrature bi ngir dal di ñaawlu pouvoir exécutif bi ni mu dugalee loxoom ci pouvoir judiciaire bi ci régime président Macky Sall ndax position yi mu yàgg am ci Ousmane Sonko moo ko dàpp lu ci mën ci am lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti participants la ñuy xaar ci boobu la ndaje bokk na ca ñoom ñoo xam ne caabi da leen a féete woon ginnaaw lu ci mel ni Amadou Clédor Sène boobule dogal nag ngir invité ko ci yooyu les assises tax na ñu bari ci askan bi samp ay laaj Clédor Sène moom nga xam ne dañu ko tuumaal ne dafa bokkoon ci ñi faat maître Babacar Sèye fukki fan ak juróom ci weeru mai atub 1993 dafa mujjee am ginnaaw gi ab loi d'amnistie boo xam ne jiitam réew mi Abdou Diouf moom moo ko voté woon naam dañu ko tegoon ay daan waaye loolee terewul mu ngi jur coow ba tey fii ci Sénégal ngir dakkal yooyu lay wax nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon génne woon na ab bataaxal ngir indi ci ay leeral ci boobu boobule liste bu sukkandikoo ci service Ousmane Diagne boobule liste base de travail rek la woon. démb ba tey ñoo gis ñu fësal ab kaayit bi ñëwaat ci ñu war a teewee dialogue national bi war am ci wàllum yoon ak yoonal ñu bëgg xamal ñëpp ni liste boobee nag ci ministère de la justice itam du ñëpp ci nekk. buñ sukkandikoo ci bile note liste bu mujj bi nag dinañu ko fësal du yàgg dara ji jigéen bu bàyyee ko ci ministère de la justice ñi nar a teew ci bile dialogue nag ñoom ñëpp dinañu sëgg ci indiwaat ay coppite ngir fexe ba gën a ñoŋal lii di wàllu yoon fii ci Sénégal.